daa bëgg wax li ñuy wax jaayub murabaha mooy lan ak lan lay atteem bay fa murabaha ne mooy kii jaay wax ne lii day nangam laa ko jëndee woon wax fam ko jaar fam ko jaar ba ne kon day nangam la ma lii dikk yow nag boo bëggee ba jaay nga ko ci nga toll na nangam pour cent wala boog naa la ko wàññi nangam pour cent te jaay la ko nga xam ne kon ci gàttal jaay la ko wax li ñu xam njënd koo ko jëndee woon ak la ci topp ak la ci topp loolu wax nañ ne moom mu mën a jënd fii tey nga ci teg nangam pour cent ñu jaay ko mbaa kii jaay mën na ko wàññi nangam pour cent te jaay ko ko Ibnu Hazm bi nga xam ne mu wax ne ak jaay la goo xam ne am njëgam daa aju rek ci njëg bi nga xam ne moom la njëkkoon a jëndee lii mu koy jaay muy sart na ne dañuy yemoo gannaaw dañu xamee njëg googa dañ ko wax ne ko moom la tegal ma jaay la mën naa yem ak googa mën na koo yées mën na ko ëpp yées gi moom wàññi kon njëg googa loolu nag doon ci sax njëggam jëndee woon moom jaaykat bi loolu wurus du xaalis dafa nekkoon li ñuy xayma dana woon wala xalaa waqawanum lay gën a leer ne ñun daa bëgg wax ne doonte njëggam jëndee woon day lu muy aw fas mbaa oto mbaa dara yooyu itam mën naa jubóog ci ñu jaayaat ne ko man njëg gi ma fayo moom rajo la mbaa oto mbaa fas la da ngay jox nag rajo bi mel noonu mbaa fas bu mel noonu mbaa oto bi mel noonu ba noppi tegal mën naa ngam lay tax loolu ay daal mooy xamuñu ba xam kiy jënd dana mën a am fas bu mel noonu mbaa rajo bi mel mbaa oto bi mel noonu te bu nekkoon ne am na ko ba noppi mbaa wóor na ko ne dana ko mën a am kon du am am na tole ba am wérante loolu ñu xëy na mën naa am kiy jënd amu ko waaye mën na koo yëbb am ko jëfewut mu benn ñaareel bi ba tey amu ko waaye moom ci dëgg dëgg bu ko mën a am boobu dañ koy aaye bu réer ñetteel bi lu mu ràññil la waaye tere na ko moom dañ koy aaye ndax xamuñu boo ko dana ca indi jëfeem déet ñeenteel bi mooy loola wax ne nan mel ñëw ñu jënd jiwee waaye moom muy jënd am na lu mel noona jiw mel ni mooy dañ ko ràññeel mu jënd ji te fekk na ba tey moom muy jënd moo moom loola kon kon jàppal yaar yi ñu aaye moom mooy moom muy jënd amul lu mel noona te du ko mën a am mbaa dañ ko ràññeel ne nangam ni ko oto sàngam mbaa fas sàngam te jënd bi ñu ràññee keneen ko moom moom muy jënd moomu ko mooy mu xëy yéen fi mel ci lu xëy la ci jamono yooyu ñu taalife téye bi bu nga saa di jaayante jaawul muraabaha danaa am ay anami anam am na ci nag yetti anam yu ràññee ko lool yoo xam ne benn ba li mu wax ñu nga di ko dégg tàmbalee ci waxu si ba in atlaqa ca lay dellu kon mën ngaa takk rek ne jaayul muraabaha ci yooyu jamono amoon na yetti anam yu ràññee ko ba ci jëkk mooy kii jaay wax lam jëndee woon ak la mu ci sore lépp dafa lu woon mais kii jënd dama may tegal nangam pour cent ma jaay la ko waaye nag nangam pour cent yi dañ koy teg ci lépp lépp lépp li ma la wax lépp daal faa jaar ba fa ma yem duñ ci génne dara loolu la ñuy seet lan ma tolloo nangam pour cent rek ma jaay na ñaari mooy mu leeral ba noppi la mu jënd woon ak la ca topp ak la ca topp ba fa mu woon ne ko nañ seet nangam moom daañ ci gàll bénéfice bi waaye nangam nag moom doo ma ca tegal dara ci bénéfice dañ koy seet daal fan war a gàll dix pour cent yi ci misaal nangam da cay bokk te nangam da cay bokk yow yaar moom kon kii jaay dafa leeral na waxamteeg jëndkat ba te bu fekkee ne loolu mooy aada it aada moog sart ñooyemoo bi ci jënd mooy mu ne ko man daal mu lay jaay alxashra ahada xashar door a jàng nag leeralal ko lam jënd woon li nga koy jaay ak la ca topp ak la ca topp ba lépp leer daga mel noonu ko dama lay jaay mu raabaxa ci lu dul ñu wax ne ko nangam day daañ ca gàll bénéfice bi nangam moom defu ko ca gàll yoon nag moo ñëw ca yooyu jamono ñu leen kon def leen nii ndax ñii moo xew loolu mooy gannaaw ba mu jëndee marchandise ma lépp lu ci def loo xam ne boo dee xool gis ko ca muy jeexi jéeréer ci bu dee yére mu suub ko mbaa mu borode ko mbaa mu weexal ko mbaa mu ñaw ko mbaa mu baram ko raw ko mbaa mu tàpp ko di ko rafetal mbaa mu nooyal ko daañu seet ndegam da koo def lu fay defal ko boppam daañu seet loolee li feroon ak lu ñu ko ci war a tegal ci bénéfice yoo xam ne nag moom yokk na ca njëg ga gannaaw ba mu jëndee ba noppi waaye waaye boo waxul des gis benn jeexit ci jëmm ja ni ki lam fay ci transport ba mbaa ba mu koy lenlu mbaa ba mu koy takkalu mbaa lam fay lappatooy loolu moom xam nga dana yokk ca njëg ga waaye boo waxul des gis ci jëmm ji waaye ndegam daal lañ ca baaxoo fay la yox ci la ujuratuhuma mooy day fekk lam fay ci sëf ga mbaa takk ga mbaa lem nga lépp daal liñ ca baaxoo fay la ak it liñ ci rek koo kiraay béyt ni cheha bu fekkee ba mu jëndee marchandise mi dafa lóoroon ab néeg ngir marchandise ma da ngir boppam ba ngir boppam marchandise mi marchandise mi taxoon mu lée néew boobu yooyu yëpp dañuy seet na mu toll ñu boole ko ca njëgg te bañ caa seet nag lu ci war topp ci bénéfice moom nañ ko yemee rek te bañ la ñu waale dara lu cay topp wa illaa falaa jee mooy bu fekkee lam fay ca takk gaag lem nga bëggum noflaay rekk tax waaye ku nekk moo ko daa defal boppam daa wisu ko defloo mbaa nga xam ne néew bee mu néew boppam a tax mbaa bopp mag ma fees mi waaye du mos ni ma doon su boobaa wa illaa fala muy fala yuxsabu aslum wala ribhun moo ci xam ne itam moo ko féetewoo moom ci boppam defal ko boppam kenn ko ca jox dara kon booy takk anamu ñetteel yi nga xam ne ci lay delloo si waxu si ba in atlaqa jooju mooy da nga wax ne jaaykat bi leeral na la mu jëndee woon ak la ca topp ci aw coonaa ki fere waaye da jekki-jekki rek ne yow mu jënd da may tegal nangam pour cent rek ma jaay la jot wax nag nangam pour cent yooyu dañ koy gàll ci nangam bàyyi nangam dañ koy gàll ci nangam bàyyi nangam ndax xam nga ka njëkk wax moom dane woon nangam pour cent yi ci lépp lañ koy gàll ñaar ba ne woon dañuy ràññeel ne nangam pour cent yi daañu ko gàll ci nangam waaye deesu ko gàll ci nangam bii nag moom jotut a ràññeel nangam pour cent yooyu dañ koy gàll ci lépp mbaa ci nangam bàyyi nangam jox ne ñu jox leen nag kon takk-takk bi nga dégg mooy lépp lu mu ci def gannaaw danga ko jëndee loo xam ne boo dee xool gis ko ca ni ki lu mu suub ca yére mbaa mu boroode ko mbaa yu demee noonu dala koo def lu fay ca daañu seet lam ca faroon seet tam lam ca doon séentu ci bénéfice loo xam ne da ko caa fay waaye boo xool moom doo ko gis ci jëmm ji ni ki tawuk suuf ga mbaa takk ga mbaa lem ga di rek naka jekk bu ma saa jënd lii danga ca fay loola mbaa lam ko léere woon ab néeg di ko ca denc te marchandise rek a taxoon millionnaire ba yëpp daañu ko seet waaye nag kenn du ca teg daray bénéfice dañ ko wàññi rek yokk ko ci njëg ga li mu ne nag in bàyyee na ndee leeral na daa bëgg a wax ne muraabaha kat balaa dagan sart ba mooy in bàyyee na ndeem leeral na in bàyyi na jooju mooy indi yaar yi ma jëkk a wax ne daañu ko def ci yooyu jamono mooy rek kii jaay leeral la mu jëndee ak la mu ca fere ak la mu ca teg lépp ci ay coono mën na caa boole nag leeralal kooku ne ko da nga may tegal bénéfice nangam pour cent te it ci lépp lañ koy dàll ba tey it mën na gannaaw ba mu leerale noonu mu noppi mu ne ko boo may tegal nag 10 pour cent yi ci misaal des na ca seet nangam waaye nangam moom duñ ko seetaale mooy 10 pour cent daañu ko gàll ci nangam waaye duñ ko gàll ci nangam bu ñetteel bi nga xam ne nag moom laa doon leeral léegi nga xam ne moo waral li téere bi wax ne waxu si ba in atlaqa mooy li mu ne dama lay jaay jaayut muraaba li ma lay jaayut baa koy jënd moom ci misaal juróom benn fukk laa ko jëndee woon baa koy sëf fay naa ca nangam baa koy takkalu mbaa baa koy sippilu fay naa ca nangam leeral leeralal bu lépp doon téeméer mu ne ko léegi naa la ko jaay ci xalaa ribihil xasara ci ahada xasara te jëtte leeral na ne ko suñ dee seet bénéfice yi dañ koy gàll ci nangam te dañ koo gàll ci nangam mbaa dañ koy gàll ci lépp nii rek la ko waxee mu lay jaay daal bénéfice u fukk yi ne nga tegal ma ca benn boo déggee abixuka xalaa ribihil xasara ci ahada xasara dalay muru ne dafa jënd woon fukk bëgg mu tegal ko bénéfice ko benn waaye loolu bokkut ak nañ aadoo waxee ci yooyu jamono te te jamono bu ne nañ aadoo waxee rek teel leen di àtte bu dee suñ jamono jikkoon dañu seet rek bu ñu nee nangam pour cent nga may tegal nañ fa baaxoo jëflante mbaa nañ sartante rek ñu fekk leen ca noonu waaye ñoom ñi moom daañu la takkal léegi bu ñu ne saa wax xalaa ribhin xasirati ahada xasir nañ ci jublu mooy rek fukk ak benn li mu ëpp fukk li mu doon nga ne mooy benn dañu seet benn nag li mu demee ci fukk ñu ne mooy xusuróom maanaam asakaam ak fukkeelam ñu jàpp na kon buñ seetee njëggaat yi ca toog yépp am daanu bu ko defee fukki xaaj lu toll ni benn ba moom la ko yokkal muy bénéfice am mu daal doon nangam pour cent ya xam ne bu fekkee topp nañ lépp mu doon fukk kon nañ koy jox fukk ak benn su fekkee xool nañ lépp mu doon téeméer kon boo ko yokkal dañ ko yokkal fukk muy téeméer ak fukk noonu rek ñu wéy ndegam dana ko xalaa ribihil xasharati ahada xashar kon asakay cosaan la muy asakay njëgg ak la ca topp rek moom la ko yokkal kon bu nekkoon dama lay jaay muraabaxa ci ribihul xasharati isna xashara te ñu seet ne fukk ñaar li mu ëpp fukk mooy ñaar ñu seet ne ñaar noonu demee ci fukk mooy xumus kon dañuy jàpp ne li mu ko war a yokk mu nangam pour cent mooy xumus kon daal bu ndefee njëgg fukk ñaar lu toll ne ñaar ñooñu la ko yokkal ñoom buñ mësaa wax dama lay jaay muraabaxa fukk ci kaw fukk benn dañu daa jublu ñu seet njëggam jënde woon ak lépp lu ca war a dolliku ñu def ko fukki xaaj ak benn nga tegal ko lu toll ni benn boobee muy bénéfice bu daal lay jaay waaye dawuñ jublu mu jënde ko fukk nga tegal ko fukk ak benn te boo dee xool waxin yi moom loolu lay tegtalee waaye nee la dañu àttee ci aada nañ baaxoo waxe foofa te bañ a seet na wax ci dikkee ci takk-takk du yomb yomb bu ñu mësaa wax lim sàngam laa jëndi woon defal lim sàngam ma jaay la dañuy seet la limub ñaareel ba ëpp bu njëkk ba ñu seet loolee boo ko dee comparé ak lim bu njëkk ba ni mu cay toll moo xam day xusru fukkeel wala rubu xukaar mbaa day xumus mbaa leneen noonu rek la bénéfice ba di toll bu ñu ko dee wàññi itam wàññi ba noonu lay toll ndax buy fàtte ne jaay murabaha tegal nangam ma jaay li ci ëpp rek waaye mën naa nekk ak wàññi ñu jublu nangam la woon mën naa la ci wàññi nangam wàññi ba yokk ba noo bokk ñu koy seetee bu ñu fukk bu ko dee yokkal ci ni ñu waxee da koy jox fukk benn benn ba doon bénéfice bu ko doon wàññi itam dañ def loola fukk ak benn ñu wàññil ko benn jaayub murabaha gii balaa baax kay jaay leeral lépp la mu war a leeral la dalee ci njëgg mu jënd woon ak la ci topp ak la ci topp ci teqare benn benn bu amee lu mu leeralul rek mën na andi ngaañ lu méttee métt ci koy jënd kon nag bu leeralul mel na mu ne junni daal la ma dikkee wala mu ne bu ma seetee lu ma jënde ak laa ca fay ci transport ak laa fay laptooya ak nangam dana ma dikkee junni waaye taxul na mu leeral ne njëgg ci boppam nangam la laa fay laptooya nangam la laa fay transport nangam la mu laa jotute teqale moom daa waroon a teqale la mu jënd ak la mu fay nangam ak la mu fay nangam lépp lépp bu leer ñu noonu nag te njaay ma ma nga fa rawagut ki jënd mooy seet bu ko neexee bàyyi jënd ga bu ko neexee itam mu waxtaan ak kay jaay ba ñu juboo rek loolu mooy rek bu ñàkkee leeral day mel ne ko wax lu amut ca njaay ma mel ne kon am na lu mu ci yokk loo xam ne waru caa bokk wax na ci lu amut ba yokk ci njëg ak bénéfice ba li ci wër te bokk léegi nag bu jaay ko bi ne kii jënd nañ seet li nga xam ne moom laa ci yokk te waruma ko ci woon a yokk ma teggi la ko jëndkat bi kon du sañ a bañ faaw mu fekk jaaykat ba ci loola li mu wax ne mooy bu fekkee ne jënd njaay ma nga fa rawul deful dara waaye bu fekkoon njaay ma ko fa raw ba noppi ba tey li rek ay mën a am mooy rek kiy jaay seet lam ca boole tuuri caa bokk mu dindi ko jëndkat bi fay ko loola mu ne lépp loo xam ne kiy jënd bu ko yëgee rek du ko neex mbaa fam bàyyi far bañ a jënd waris na ko koo leeralal yoon nag daa toll ci muraabax rek wax ko ci waaye ci xeeti njaay yépp la kuy jaay ku ne rek war naa leeral jëndkat ba lépp lu mu defe ne bu ko déggee di ko ca neex yooyu bëgg rek moom ci bunt bi rek yi ci ëpp ci la aju waaye li mu waxagul nii moom ci xeeti njaay yépp la bu dee jaayul muraabax moom te ba mu koy jënd na mu jógee woon nag ka ko doon jaay ak na mu ko fayee daa wuute na leeral loola wax ne bàyyi jubee moom day dana jubee woon ci nangam waaye nag naa ko mujj fayee du noona mel ni bu dee jamono yi wurus sa xaalis amee mu jubóo mu jubóo na moom ci nangami dinaar te ba mu koy fay nag mu fay ko xeetu xaalis mbaa xeetu marchandise di ko bëri suñu jamono ji sax mu njëkk na jubóo koor ci ba mu koy jënd ci nangam ci xaalis gannaaw ba mu fay ko leneen lu bokk ci xaalis bu dee jaay muraabax ma faaw war naa leeral loola su fekkee dañ ko koy jaay lépp toon lu mu fay ci saasa dañ koy jaayoon mu jëm dele kon bu koy jaayaat muraabax war naa leeral ne ba koy jënd kat fayu woon dafa jëmoon dele ba tey bu fekkee ne ba mu ko jëndee lu yàgg na ci ay loxoom war na koo leeral ndax ñu bëree bëri li ko see xam yàgg na ci seen loxo rek am lañ koy bañ su fekkee ne ba mu koy jënd ba mu fayee jaaykat boobee la mu ko fay am na ci loo xam ne piriwut waaye da ko ko jégaloon topp ko ci dara mbaa boog ba mu ko fayee li sonn ci ak manki waaye da ko caa bàyyi woon rek noonu moom ma ko doon jaay kon bu ko dee jaayam raabaxa war naa leeral ci jënd ne ko bàyyi fay day ka ma doon jaay gisoon na ca mu piriwut mbaa lu matut waaye nag da ko caa bàyyi rek noonu dama doon jaay daal lam gisoon ci njëg gi ma ko jox ci ak ñàkk a piire wala ak ñàkk a mat xolam da caa sedd rek wax ci dara na leeral loolu su fekkee loolu mu jaay mu raabaxa da caa am luy bàyyikoo ci bitti ani ci bitim réew ñëw mbaa beneen dëkk ñëw am beneen xeet boo xam ne foofu ci dëkk ba lañ koy liggéeyee te ñu wute nag nga xam ne yemuñu kon bu dee jaay dara ci mu raabaxa ci loolu war naa leeral ne lii day façon bi bàyyikoo bitim réew la wala lii day mooy bi bàyyikoo fii ci réew mi mooy bi am fii ci réew mi ndegam bëgg-bëgg nit ñi wute na ci rek war naa leeral loola ba tey bu dee ba tey bu dee lu bàyyikoo ci ab dono na leeral ne ci ab dono la bàyyikoo su fekkee ne loolee mu koy jaay jaay muraabaha day lu ñu war mbaa lu ñu sol te moom jëfandikoo na ko bu dee waral bu dee sol na ko leeral na ko gannaaw baa ko jëndee nag doon naa ko war mbaa doon naa ko sol su fekkee lii ba mu koy jënd booba dañ ko ko jaayoon ci golobal rek ak lim la yëkk-yëkk am njëg rek mu jënd ko ca gannaaw ba nag mu seet ne njëg bi ma ko jëndee daal moo ko dee teqale benn benn benn bu nekk war na maa dikk nangam kon bu koy jaay muraabaha te fekk ko mu bàyyi ko ci salam na leeral kooku ne ko man day dama koy jaay ñu ko jaayoon rek ko labal man nag ma seet ne benn bu ci nekk njëg war naa tolloog nangam kon na leeral loola bu fekkee nag dafa bàyyi ko woon ci salam maanaam dafa fayoon njëg rek doon wutul lu mel noonu du aajo muy leeral lu demee nii di wax ne damaa juddoo woon moom ci mu wutal ma nangam ma fay ko nangam waaye nag bi mu jotee ci benn benn yi xam naa ne daal benn bu nekk nangam la war a dikk loolu du jar mu di ko seet da ngay njëkk jàpp ne kii jaay jaayu muraabaha ca ba muy leeral amaana mu juum amaana mu wax lu amut fen amaana itam mu def lu wax xëccu wax te loolu mooy deseloo koy jënd lu bokk te la am yettee na di wax seen àtte ba mu juumee ak ba mu fenee ak ba mu defee xëccu maanaam defeloo jëndkat bi lu bokkut ak la am ci jaay moomee dafa njëkk njuumte ne bu fekkee ne moom mi jaay muraba dafa jaay ba àggal tudd am njëg gannaaw doo mu ne damaa juum ndënd gi ëppoon na ko mu ne woon ci misaal mu ne woon njëg gi juróom fukk la te bu ma seetee nangam laa jënde woon nangam laa ko sufe nangam laa fay làppatoo yi wax a wax daal ba ne lépp moom juróom fukk la kon leral na gannaaw ba mu damaa juum rek waaye doon juróom fukk téeméer la woon bu fekkee ne moom mi jënd gëm la mu wax mbaa gëmu ko waaye moom ci boppam moom mi jaay taxawal na ay seere yu seere ne li mu wax dëgg la njëggam njëkkoon wax njëmte la woon li mujj wax moo dëgg kon bu njaay war a wut dañ koy tànnloo moom dëndkat bi nga xam daal buñ seetee xaymay njaay ma te date ko ci bis bañ jaayantee ñu ne xayma gi nangam la ñu seet nag njëg gi mu di wax muy njëg gu wér ak lañ ci war a def ci bénéfice yooyu yaar moom mi jënd mooy seet lu ko ci neex rek moom lay fay bu may nag dañoo seet xayma ja ña ko xam wax mu daal di yées njëg waxoon da caa juum ak la ci war a topp ci bénéfice mel ne ba mu nee daa juum ba mu boolee njëgam juumoon ak bénéfice am doonoon juróom benn fukk bi ñu xam seetee xayma ja nag xayma ja tolloo juróom fukk rek mbaa ñeent fukk rek kon danga moom dane woon daa juum te ba muy tudd juróom benn fukk yooyee mu njëgu njuumte la ak bénéfice ba te moom mi jënd nangu na ne wax na dëgg da caa juum daa am nay seere yu ko seere kon ki jënd du ko mën a fay lu yées njëggam njëkk na wax te juum ca da nga xayma ji moom yées na njëg googu rek du ko mën a fay lu yées njëgg nga xam ne da caa juumoon ba tudd ko te moom muy jënd nangu na ne kii jaay da caa juumoon ba am na ay seere yu ko seere kon na ko fay juróom benn fukk yi nga xam ne mooy njëggam tuddoon te juum ca ak bénéfice am ba mu ne woon boo boolee lépp juróom benn fukk la bu fekkoon ne nag ba mu ne dafa juumoon ci njëggam njëkk wax moom muy jënd gëmut loolu moom itam amul ay seere dañu dogal rek ne njaay bi dog na te njëg yi mu wax naa de te juumoon waaye moom amul ay seere te ki jënd itam gëmu ko njëg googu rek lañ koy fay kii jaay murabaha bu fenee wax njëg gu ëpp gëm ko jënd woon mel ni mu tudd téeméer te ci nangam bénéfice dañ ko toppee ndeke moom waxul dëgg njëg ma tutoon téeméer kon bu fekkee ne njaay ma rawut dara woowu ca bu nangoo wàññi la mu ci yokk ci waru ca am wàññi la mu ci yokk ci njëg ga ak ci bénéfice ba ba mu des rek la mu war a des kon jaaykat bu faaw bu jënd du sañ a bañ bu lu mu mata dindi loolu nag ki jënd mooy seet bu ko neexee xàcc bu ko jaralee itam mu jënd loolu nag mooy bu fekkee ne njaay ma rawut dara woogu ca bu rawee dana ko wax léegi defe naa dama war a fa jàng rek baat yi mu tegaloo ndax da ciy bëgg a teg ak xëccu te muy xëccu muy tafit fan yi mu toll bu loolu rawee muy la ñuy jaay ak bu rawut attey la wute damaa def ne ko damaa war a far jàng baat yi ngay dégg rek su ko defee kenn ku ci nekk ma wax ko rek bu dee fen ma wax ba mu fenee ca ba mu rawee ak ba mu rawut ñu susaloo ñu xëccu itam ma wax ba loola rawee ak ba loola rawut ibnu xarafa ne alxëccu mooy kiy jaay fexe ba defeloo koy jënd ne ba mu bëgg ci njaay ma am na ca te fekk amu ca mbaa mu fexe ba defeloo ko ne ko li nga bañ amu ci te fekk loolee mu bañ am ca bu wér rëccu bi mën nga koo misaale jaaykat bi bind ci jaay ma njëggoo tuggam ko jënde woon ba noppi nag jaay njëgg mu jënde woon ngir bu ne damaa juumoon rek ñu gëm ko kon lay wax ci takk-takk mu gënee woon na ci yow ne kay jaay muraabaha bu fenee wax njëggu ëpp ga mu jënde woon mel na mu ne téeméer te fekk na njëgg matu ko woon ndegam loolu rawut bu nangu wàññi la mu ci yokk ak bénéfice ba mu ca tegoon te lépp kay jënd faaw mu jënd du mën a bàyyi bu mën wuta dindi loolu moo set nag kii jënd bu ko neexee jënd bu ko neexee bàyyi bu fekkee njaay ma raw nag jaaykat ba la ñu tànnloo yaar yi lu ko ci gënal ñu fay ko njëg a wér te wóor ak bénéfice am mooy rek njëg nga xam ne waxu ci woon dara lu amut ak bénéfice am mbaa xayma ja nga xam ne ñu xam loola moom la ñu wax xayma ja nag moom du ànd ak bénéfice li mu doon doon jaay murabaha mais xayma moom day wax rek xayma ja te bañ caa tudd dara bénéfice ñu seet nag xayma ja ñu wax ak njëg a wóor yooyu yaara lu ca jaaykat bu taamu rek ñu fay ko ko bu may nag dañoo seet xayma ja mu ëpp njëggam waxoon te fen ca boole ci mel ne njëggamu fenoon daa waxoon téeméer ñu xool nag xayma ji mu doon téeméer ak ñaar fukk kon kenn du ko jox téeméer ak ñaar fukk muy xayma ji la waxoon ba tudd ci lu amut te xolam seddoon na ca kenn du ko jox lu ko ëpp te mooy téeméer yooyee soo jàll see ci alxis moom xam ne woon nga ko day wax ne bu defee xis bii te fekk njaayam rawagut kay jënd bu ko neexee wéy jënd bu ko neexee itam bàyyi loolu mooy njaay ma rawut bu njaay ma rawee nag kii jënd dañuy seet yaari li ci gën a néew rek moom lay fay njëg dañu jaaye woon ak bu ñu wayeex ñu ko xam ñu xayma ñu xayma ja war a toll yooyu yaar li ci gën a néew rek moo koy war jaay mu raabit mu toll ku ci def tablis xam ci sikk te nëbb ko mook ñu defal ko ci keneen jaay bu bokk ak googa te ñu leeral ko ci gannaaw atte ba benn la lañu waxoon foofu rek mooy ñëwaat fii